dal leen ak jàmm ami site internet RTV dakaar li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañu koy door rek mbër mii di Lac de Guiers nag bu ñu muytulee rek nag dina fanaan guddem ku njëkk ca euh, prison bu ñu sukkandikoo ba tey ci kat yi nga xamante ne rek dal dinañ koy jot moom mbëru sénégalais bi ñu gën koo xam ci turu Lac de Guiers de jamono ji lii di autorité policière yi nag ñoo ngi koy teg bët ginnaaw accusation yi nag lu ñu koy toppee wàllum escroquerie ñeel app visa bi ne nag dina ko defaral ab net bu wéetu turu dëkk ca diwaan bu Géejawaay moom nag dina koy jébbal ab plainte ci kanamu procureur bu tribunal bu Pikine Guédiawaye moom mbër mi nag la ñu koy toppee jamono ji mooy escroquerie ci wàllum visa mbir mi nag na demee ab tailleur bi nga xamante ne rek dafa bëggoon a wutali nag diwaan bu France moom nag moom ci jëmmi boppam rek moo am ab waxtaan ak kii di Lac de Guiers 2 jaarale ko ci intermédiaire xaritam bi ñu dippee Salam moom tailleur boobulee nag jot na lu tox jot naa joxe lu toll ci 3,5 millions maanaam ñetti millions ak genn wàll ci suñu koppar au mu joxe nag ñeent ñetti millions ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy Lac de Guiers 2 ci présence su kii di Salam nga xam ne nag moom moo nekk ab intermédiaire am nee na nag ginnaaw ay weer yoo xamante ne rek contacté ko gisul lu xeetoo ko Lac de Guiers tailleur bi ci jëmmi boppam nag dafa daal di jébbal ab plainte foofu ca kanamu procureur bu tribunal bu Pikine jamono ji nag ñuy wax ab enquête daal nañ ko ci ubbi rek foofu ca police bu Wakhinane Nimzatt mi nga xamante ne rek jot naa localiser kii di Salam ba daal di koy teg loxo moom nag ma gàddaay waaye bu fekkee nag kii di Lac de jamono ji nag ba nëgën ni rek ñu ngi koy couvrir kenn tegagul ko ay bët naam sax takk der yi nag wàcc nañ ca këram waaye nag fekk ñu ko fa ngir jébbal ko nag première euh, convocation jamono ji nag ñuy wax ki nga xamante ne rek moom mooy tailleur bile maa ngay sàkku rek ci Lac de mu daal di koy jox ci koppar yi nga xamante ne joxoon na ko mu tolloon ci ñetti million ak genn wàllu ginnaaw bu mu ne rek da koy wutal visa ngir mu dem foofa diwaan bu euh,